ni ngeen ko yoree est-ce que du mooy problème bi. non ni par rapport di dénoncer. non acharnement non acharnement jëm ci ñenn ñi. non Mamadou acharnement amu fi Sénégal bi ñu koy jël taux de croissance la ñu ngi jàllee ci un taux de croissance de à deux actuellement on est la première économie dans la communauté. non je parle de vos relations avec les hommes politiques les autres hommes politiques. de l'opposition amuñ le problème xam nga dans un net un pays l'opposition euh, le pouvoir gouverne l'opposition vote les lois, examiner et contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques depuis le référendum de 2016, mu jaar yoon. ñun lañ fal légalement ñuy exercer un mandat démocratique. situation bi président quelle est l'origine lu ko lu ko tax a jóg. mais président woote na waxtaan ay yoon yu bari. non avant waxtaan bi kay situation bi ñu dund nii nii nii nii. non situation bi ñuy dund maanaam yéen est-ce que vous n'avez pas des choses à vous reprocher. non non non non non non non non dans une démocratie le baromètre c'est le c'est c'est les élections mhm. ku gagné yow yaay gouverner amoo obligation woo nit ñi waxtaan rafetal ak Sénégal doon réew waxtaan moo tax ñu woon ni ñi le président woote ay assises dans tous les domaines muy éducation muy fonction publique muy domaine yëpp muy le gaz et le pétrole muy domaine yëpp président woote ci waxtaan woote dialogue national et politique en entreprise ba am ci ay raaya ay prix yaa ngi dégg. donc kenn du ne bu ñuy gagné 2019 c' était avec un score soviétique oh, te waxtaan bi am na lu bu jur la composition des listes au niveau des élections territoriales locales. mais dañ ko modifier may ñeneen ñi chance. Mhm. wàññi majoritaire bi doole dooleel proportionnel bi. le parrain le parrainage bi wàññi nañ ko. Mhm. élection yi passé amul. mais loolu waxtaan ko jur fii guerre yeeg loo gis ci àddina ci waxtaan lay mujj ay nit bu ñuy ànd wala ñu bokk réew. mënuñ bokk gis-gis des gens qui sont ensemble ils peuvent pas être d'accord toujours et sur tout. Ah, mais sur le cas présent monsieur le ministre euh, tey jii nii boo seetlu lu tax dëkk bi tey ci ngoon mu tàng mooy Ousmane Sonko bi nekk këram mënul dem mënul dikk ay nitam mënuñu foofu la tàmbalee en fait est-ce que vous aviez le droit. de de faire ça non non yi yëf yi encore une fois tàmbalewul foofu xam nga. yëf yi donc situation tey bi. non situation tey bi. dañuy manifestation yi loolu ko indi. dañ ciy accès benn nit moo dem ci benn bërëb tàgguwul dem fa fa. yaa ngi dégg dem fa waxtu woo xam waru fa dem yaa ngi dégg foofu mu am ay prestation illégale heure bi bërëb bi ubbi waru ko ubbi prestation ma fa doon sàkku waru ko fa sàkku heure ba mu fa dem waru fa dem parce que boo amee privilège yu dox ci couvre fa farata moo war a tax nga dox mhm. yaa ngi dégg lam ca wax dara amu ci faju kuy faju foofu ngay fajoo mun nga jaawale Imodsen ak ak Sweet Beauté bi yëf yi xewee dañuy génn ne xamuñ bërëb bi xamuñ ndaw si ñoom ñëpp teg ay câble lan la ñu gis après la ça les incohérences mais loolu c'est pas le débat. débat bi dama lay wax fii fii mooy kër góor gi bi ngeen barricadé est-ce que loolu moo waral mënoo yegg si foofu tey remonté histoire bi. la défiance aux institutions. yaa ngi dégg attaqué kilifa diine attaqué njiitu réew mi attaqué kilifa aada yi attaqué justice attaqué administration territoriale attaqué euh, euh, euh, gendarmerie attaqué police attaqué jigéen ñi la femme qui représente tout chez nous et dans nos religions ñu am ay yaay am ay doom am ay jabar. ngay attaqué nit et puis di di saaga sax ñi nga xam feebar yàlla da leen natoo feebar te gënoo leen. nit kooku nee nañ yéen a ko créé. non créé wuñu kenn moom moo ko créé moom. il a tellement subi. non doucement non non on l'a pas créé c'est venu après. non non avant loolu am na lu amoon am na ku ma ne sànq Kabal. ma ne ko ma mais en tout cas du complot te ci ñoom la far yaa ngi parce que ñun ay mbokk lañ ay sénégalais. Mm-hmm. dañuy waxtaan suñu biir. Mamadou fii dara mënu fi dal tey bi may ñëw tàgguwuma ko moom moom Ousmane Sonko war moom la dafa am yoo xam dafa yomb te yabaate la en vérité comprendre gis nga gémmiñ boo waxul dëgg rek wax la ca topp muy ay fen nañ waxante dëgg te yàlla tax fii ku dee ak sa bàmmeel bu nguur gi jeexe dañuy continuer parce que dañuy jàng am liggéey avant ñuy politique comprendre nga le président c'est un ingénieur on s'accroche pas au pouvoir dañ ñu nommer dañ ñu élire ñuy liggéey correctement teg réew bi ci yoon bu fa debu noonu coow di fa am bu defu leen institution yi bari wuy yoon coow du fa